bismillahi irrahmani irrahim lii mooy téereb sëriñ Tuuba bi ñuy wooye masalikul jinaan fii la tàmbale dañ koy jàngale njàngaleem daara di ko def par ay dix minutes def ko par ay numéro lii ngay jàng nag mooy numéro ci masalikul jinaan bismillahi maa ngi tàmbalee ci yàlla arrahmaani kay aji yërëm ak a xiiwal ña koy sant ak di ko gërëm ak di ko jaamu ci àddina ak ña dul sant duñu ko gërëm duñu ko jaamu arrahimi te nara a xeewal ci àjjana ña ko doon sant doon ko gërëm doon ko jaamu yal nañ ci yàlla boole sallallahu yal na yàlla dolli teraangaat jàmm ala sayidina ca sunu sang ba muhammadin muhammad wasalama te mu dolli koo musal tasliman ak dolli musal fa man kaana ku nekk yarjoo di wóolu liqaa rabbihi dina dajeeg boroomam fal yaxmal na dal jëf amalan ay jëf saalihan jëf yu sell wala yusrik bu mu bokkaale mukk nag bi rabbihi ci jaami yàlla yi ahadan kenn jaamu gi muy jaamu yàlla tamit bu mu ko bokkaaleeg dara ndax allahu yàlla rabbi kay sama borom man sëriñ tuuba wala usrik bihi duma ko bokkaaleeg dara say an ak lu mu man di doon duma ko bokkaaleeg yàlla wala xawla déet pexe wala xuwata déet kattan ila bihi ndare ju daa bàyyi ko fa yàlla allahuma yow buur bi ici na naa yàlla nag nu def minal muttaqiina nu bokk ca way ragal yàlla ya allazina ña nga xam ne tatta xaballu di nga nangu minhum ca ñoom seeni jëf wala taj xal naa tayit yàlla nu boole min allazina ca ña nga xam ne dalla sànku na sahyuhum seeni jëf fil ayaati dunya ci dund ak àddina dong lépp lañuy jëf àddina dong tax ñu di ko def te waxum ñoom yax si boona ña ngay naka ñoom kat yuxsinoona way rafetal lañu sun an seeni jëf te ñooñee ndekete pertement la ñu nar a am keroog yowmal xiyaam kon yàlla bu nu boole ca ñooña amiin wala tarxam na yàlla boo nu xañ yow sunu boroom ajra haza taalifi yoolab taalif bii ngay jàng toolab taalif bii di téere bii di masaalikal jinaan yow sunu borom yàlla boo xañ yool bi ci ne wala ajra xayrihi yàlla boo nu xañ yoolab weneen taalif budut bi wii bi sayidina ci darajaayi sunu sang ba muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallama yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm xaala wax ibnu seyxihi kay doomi sëriñam almbakkiyu te bokkuti ko jog mbakke ahmadu te ñu di ko wooye ahmadu bamba adxallahoo yal na ko yàlla tabbal xayral jinaani ngën ji ajjana amin assamadu yàlla may aji jubluwaay bay aajo ci barke yonente bi yal na ko tàbbal ngën ji ajjana maha jamiil muslimina boole ca dugal ca ajjana jooje mboolem woy ommatu ya almuxlisiin ñay waroom ak sellal seeni jëf boole ca tabbal ca wa kulli man ak képp koo xam ne fasa texe na maanaam am na bil ixlaasi ci sellal ay jëfam amin yal na nga nangu yow mi nga xam ne yaay sunu borom tey borom bindee fi ak cant lillahi aji yeey la ñeel yàlla allazi yàlla ma nga xam ne talab sàkku na minna ci nun ixlaasa sayhin nu sellal sunuy jëf wa muraatal adab boole ca sàmmoon teeg ay teggin man yàlla moomee nga xam ne yan suru dana xool alxulooba xol ya wa saahira ak mbooleem ya nëbbu te buy xool xol ya ak mboolem nëbbu nëbbu ya doona la si du nekk ci loo xam ne yàkkoonu dina nekk saahira di fés min naa ci nun buy xool xool yaag la nëbbu du nekk mbir moo xam ne nun dinañ ko yëg doona les yi ci lu dut loo xam ne yàkkoonu dana nekk saaxira di feeñ min naa ci nun buy xool ya nëbbu nun duñu ca yëg dara buy xool jëf ya nëbbu ak jikko ya nëbbu te malaayika ya di ñu ko bindal ci suñu kayitu jëf ñu diñu ko markeel moo xam ya nëbbu la moo xam ya feeñ la bu ko yàllay xool ñu diñu ko markeel nun dunu ci yëg dara dina xool la nëbbu nag muy yàllaq ko ca tasawuf di xool ya feeñ te feeñ ca fiq waaye bu ñu nu koy markeel nun duñu ca yëg dara suma salaatu topp noo ñaan teraangaat jàmm ma salaamin ànd ak musal ak sunu boroom yat baxu gog day topp di dem rek àlallasi ca sang ba nga xam ne yu safaxu moo naran rammu xaddan ëllëg fi ci nun muy rasulillahi yal na ko yàlla tofal taraangaat jàmm rek rasulullah man moo nga xam ne te xëlla takaayoona bi fada ilil huda ca mbooleem ngënee li jub ya rasulullah takaayoona ko wataqala te rasulullah moomu set na wecc an raza ilil rada ca mbooleem caay caay yay alak ab jaam rasulullah set na ca wecc muhammadan kooku mooy muhammad alkaasifi kay aji daq alxumma mboolem njaqare ya xanaa ci nun wa alihi te yal na teraanga ak jàmm moomu ca ñoñom wa sahbihi yal na egg ay saxabaam wala humma ak mboolem xeetu rasulillah kon ñaan googu ñuy ñaanal yonent bi di ko ñaanal saxaba yi te sëriñ Touba di ko ko ñaanal fii egg na ba ca xeetu Muhammad yal na ko yàlla nangu amin mu ne xeewal yooyu muy ñaan nag yàlla bu mu dakk di wàcc ca Muhammad ak mboolem xeet weeg saxaaba ya maaxa ma ngay am man ka nga xam ne yu bat kabbidu saytaana ma ngay jànkonteeg saytaane badu du topp saytaane fi ak kooka ngay am ngërëmal yàlla yàlla bu yàlla dakkal di wàcce ñaan googu ci yonent ba wa nafsahu ak ka nga xam ni ma ngay sàkku ngërëmal yàlla bay jànkoonteeg xeex ak bakkanam ba bañ a topp bakkanam topp la neex yàlla fii ak kooka ma ngay am ngërëmal yàlla yàlla bu yàlla dakkal di wàcce teraanga jàmm ci yonent bi ak saxaaba yi ak mbooleem xeet wi maal xawaa feek jaam yàlla ba tamit ma ngay jànkonteeg topp bànneexam ba du topp baneexam ma ngay topp la neex yàlla feek kooka ma ngay am gërëmal yàlla te ñoom ñëpp ñu ànd am na ajjana ma nga xam ni ngërëmal yàlla moo koy maye feek looloo ngay am te mooy faral di am yàlla bu yàlla dakkal di wàcce teraangaat jam ca yonent ba